أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk ñu leen ziar di jox sunu wàcc ala kul haal waaw ñu fas yéene commencé incha allah waaw xuruf bi ngeen njëkk a gis mooy alif am ñoo xam ne alif lañu wax baawun taawun lu la nga ne alif baa taa ala kul haal xuruf bi ngeen njëkk a gis moom mooy alif gis nga boo bindee allahu moom ngay jiital waaw gis nga asalaamaaleykum boo bind alif laa jiital bi moom ñëpp xàmme nañ ko ñu dem si beneen beneen beneen mooy baa gis nga tomb bi suuf la nekk da ko war a xàmmee baa ko gis rek nga xam ne bii mooy baa gis nga booy bind bisimilah rahmaani rahim moom ngay jiital lii début bi sax mën na bañ a kii mais da ko war comprendre xàmmee ko rek alaa kulli ndax bu ñu demee ba boole lettres yi ba nga bañ a dem ba si kaamil bi du ñu am benn problème bu si nag mooy taa gis nga ñaari tomb yi ci kaw la nekk loolu da ko war a xàmmee ba foo gisee di rek nga xam ne bi mooy taa am na yeneen to ak yu nduróog moom yooyu yëpp dinañ ko décortiquer xam wax leen seen différence ñoom ñaar bu stop nag mooy saa gis nga saa bii nag moo gën a méttee wax saa gis nga bii boo ko wax sa làmmiñ ba ñu nekk si si kaw moom lay dem saa sa làmmiñ si ba ñu nekk si kaw lay dem gis nga bokkul ak saa bokkul ak cha mais saa la léegi sa làmmiñ si ba ñu nekk si kaw lay dem comme ça nga ni thumma la yamutu fiha wala yaxya gis nga thumma gis nga wala nga ni wa min sharri naffaasaati fi l-uqad gis nga wa min sharri naffaasaati gis nga fa salaam yi si ba ñuy nekk si kaw lay nekk wallahu taala alam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu